l'essentiel des interventions lu ci ëpp dafa ñëwaat ci wàllu làmb yi euh, maanaam làmp yi kon xam ngeen ne luñ ci am du doy soññ laa ko jàppee ci ne li des ci li ñu dugalagul nañu fexe ba gën a bàyyi xel ni ñu koy dugalee yeneen yi nga xam day ñëw ci deuxième phase bi ñu tenir compte ci préoccupation yi population yi exprimé yenn ñu bind ko yenn ñu ñëw fi wax ko yenn yi ñu seet ñi ñu xam ci maire yi wax leen ko ñooñu jot ñu bu jàmm rek day xew euh, danañu fexe ba li sunu kanam ñu jëfee ko noonu wàllu ndox mi moom wax nañ ci ñaar fukki quartier ak ñaar yi ñu identifié nga xam ne ça même au-delà de ce qui était prévu par le plan de développement de la ville ndax foofu on parlait de treize quartiers non desservis cette fois-ci ci enquête yu gën a poussé dem nañu ba gis ne ñaar fukki quartier ak ñaar am nañu problème mu ndox man ma wax ni li ñu njëkk a jot ci wàllu PACASEN ñu ni dina jëm ci quatre cent millions damaa wax ni priorité bi avant toute chose mooy ndox parce que l'eau c'est la vie euh, loola mi ngi ci yoon ndax fañ ci waroon a liggéey ak fañ ci waroon jaar def nañ ko AGETIP mi nga xam ne moo yore liggéey bi ñoom ñi ngi toll ci passé marché ak jublu ci loolu bu def naa ni balaa yàgg ñooñu nga xam ne ñoom la loolu concerné dina am luñ ca gis te dafa am tamit ak ay branchements sociaux wax naa leen fi ne waa SONES euh, gisante nañu ak ñoom ci jataay yu amoon ndax dañuy am souvent conseil d'administration wu SONES ndax ville de Thiès da cee bokk te bu ma fa nekkul it kama ma fa yebal loola moo fa yitteem principalement au-delà vraiment de l'intérêt général pour Sénégal yëpp euh, loola mi ngi sunu kanam Euh, branchements sociaux yi au-delà de l'addiction aussi dañ ko def bu soobee loolu mu ngi ci mi ngi suñu kanam bu moyens yokkoo aussi mu gën a yaatu am na loo xam ne wax nañ ko ci condition de travail yi ñooñu li ñu wax ñun lañ koy waxal ndax ñun ñoo fi nekk ñun ñi ñoo fi nekk di fi yendu ñii nekk ci état civil xëy na di nit dina ñëw di fi wut dara mais dafay ñëw le temps bi muy déposé wala muy récupérer dem am na ñoo xam ne dañu fi nekk suba ba ngoon ci condition yooyu donc xam nañ ko mais loolu loolaa waral ci PACASEN bi ñu boole ci réhabilitation de l'hôtel de ville parce que bu ñu waxee réhabilitation de l'hôtel de ville dañu cee boole aussi bureau yi dañ cee boole surtout état bi dañu ciy jël ay dispositions yoo xam ne yaakaar naa ni bu àggee ak jàmm. ku duggati ci maire bi nii di nga xam ne am na lu des au delà même de li ñuy tuddee ay toilettes publiques yeeg yu ne mel loolu mi ngi sunu kanam ak jàmm au lieu ñuy euh, glorifier wu d'intention annoncée nous préférons attendre ba nu liggéey bu boobaa bu nu réaliser comme ni ñu koy defee chaque fois ñu ne ah lii de waxoon nañ ko fi ne bëgg nañ ko def ci diir sàngam léegi pare na su paree ñépp xam ne pare na bu boobaa liggéey bi dana gën a yomb